أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم إخوة الإيمان السلام عليكم ورحمة الله وبركاته mbokki jullit yi noo ngi ànd ak yéen ba tey ci charhu du'a min alkitaabi wa sunna tey ñoo ngi jël aadabu du'a wa asbaabul ijaaba teggin yi nga xam ne ñaan war na ànd ak moom ak sabab yi nga xam ne mooy tax yàlla nangu ñaan mbokk yi teggin yi nga xam ne mooy tax yàlla nangu ñaan ak sabab yi nga xam ne mooy tax yàlla subhaanahu wa taala nangu ñaanu jullit bi bi ci njëkk mooy al ixlaasu lillah mooy mu sellalal yàlla wa haza huwa azamu surut tomb bi nag mooy tomb bi gën a màgg bi gën a rëy ci charte yi nga xam ne moom la yàlla di nangoo ñaan qubulu du'a wa ahamiha nangu ñaan ak importance yi nga xam ne moom moo ci gën a am ak charte yi nga xam ne moom lañ ko gën a feddali dëgëral ko di nga fekk mooy sellalal yàlla tabaraka wa taala ci ñaan gi nga koy ñaan nee na mboolem ñaan gi fii rek lay wër ndax moom mooy ruuxu ibaada mooy ruuxu jaamu yàlla mooy tax yàlla subhaanahu wa taala nangu jëfu jaam bi looloo tax yonent bi alayhi salaatu wasalaam bam nuy digal nu ñaan yàlla yonent bi di ñu ko sant sunu borom subhaanahu wa taala dafa wax ne fad'ullaha muxlisiina lahu diin walaw karihal kaafiruun ñaan leen seen borom woo leen ko ngeen sellalal ko seen diine mu ne donte ne yéeféer yi bañ nañ loolu yéen def leen ko fal ixlaasu fi fi du'a ayuha al ahbab wa tasfiyatu du'a sellalal yàlla sa ñaan sellalal yàlla sa jaamu mbokk yi loolu day li muy tekki mooy nga setal ko nga segg ko setal ko tànn ko ba mu set wécc doo ci dendale kenn ku dul yàlla wal amalu min kulli ma yusawibuhu nga fexe ba sellal jëf ji ci lépp lu koy tilimal lépp lu koy manqué lépp lu koy gàkkal na nga fexe ba ñaan gi bu mu am loolu lépp na nga ko orienté ci sunu wetu boroom subhaanahu wa taala nga bañ koo dendale bañ ko bokkaale bañ cee ngistal bañ cee déggtalu ñëw na ci sunna yonent bi alayhi salaatu wasalaam ay texte yuy dëgëral loolu di ko feddali ne kii ñaan yàlla na sellalal yàlla jëfam fexe ba segg jëf ji ci lépp lu koy tilimal ak lu koy yàq ci xeetu bokkaale ngistal ak déggtal yonent bi alayhi salaatu wasalaam wax na doomu baay taxam ba abdallahi ibnu abbas abdallahi ibnu abbas nee na kuntu xalfa nabiyi sallallahu alayhi wa alihi wa sallam benn bis nekkoon naa ci ginnaaw yonent bi alayhi salaatu wasalaam fa qaala mu ne ma yaa gulaam inni muallimuka kalimaat yow xale bi maa ngi lay jàngal ay baat ixfadillaha yaxfazka wattul yàlla yàlla wattu la ixfadillaha tajidhu tujaahak wattul yàlla nga fekk yàlla sa wet ngalla waay yow xale bi isa saalta fasalillah booy ñaan ñaanal yàlla wa iza staanta fastain billah booy sukk ndimbal booy sukkandiku ci ndimbal sukkandikul ci yàlla gis nga kon yonent bi alayhi salaatu wasalaam li mu jàngal xale bi li ni njëkk a jàng ci hadis bi ndeke yar boo ko bëggee def di fexe bay tabax da ngay tabax ca ba muy tooy waaye boo bàyyee ba ciment bi ne keng wow nga bëgg a tabax du dem booy jëmbat garab nag nga jëmbat garab gu ndaw boo ko jubantee mu jubanti ko waaye bu dëgëree boo ko bëggee jëmbat jubanti ko du jub gis nga yonent bi xale bi mu ngi koy jàngal pas-pas di ko jàngal tawxiid ne ko yow xale bi yaa xulaam yow xale bi maa ngi lay jàngal ay baat wattul yàlla gis nga xamal yàlla xamal kuy sa boroom nga wattu ko mu wattu la ndeke boo bëggee am sécurité ah wattul yàlla boo wattoo yàlla yàlla wattu la waaw nekkal en garde ak sa boroom su ko defee sa boroom garde la loolooy wax ji wattul yàlla yàlla wattu la booy ñaan ñaanal yàlla booy sàkku ndimbal sàkkul ndimbal ci yàlla xoola xale bi su màggee nii kii kon kan lay doon jullit bu ne keng bu am aqida bu am pas tawxid bu am pas-pas bu dëgër mbokk yi ba tey ci tomb boobu di ixlaas pour ñu wane importance bu mu am ci ñaan sunu boroom subhanahu wa taala yéeféer sax bu sellalee bu ñaanee yàlla yàlla may ko waxuma jullit de yéeféer laa wax bu sellelee ci ñaan gi muy ñaan yàlla su ñaanee yàlla may ko kon jullit nag mbokk yi kon ab jullit nag xoolal yàlla nee na yéeféer yi wa iza rakibu fil fulki daawu llaha muxlisiina lahu ddiin falamma najjaahum ila albarri iza hum yushrikuun allahu akbar yàlla nee na yéeféer yi bu ñu duggee gaal bu gaal gi demee ba ci digg géej gaal gi rëngi-rëngi vague yi tóoj gaal gi ñoom yéeféer yi ñu tiit xam ne fii alkande moo fi nekk yàlla nee na daawullah ñu daal di koy woo moom kese allahu akbar ñu sellal muxlisiina lahu diin ñu sellaleel yàlla diine ji ñu xam ne yàlla kese nga dégg ñu ne oh moo jë yaa rab yow sama boroom ñu woo yàlla allahu akbar kenn du woo kenn yàlla rek la ñuy woo yàlla nee na falamma najjaahum ilal barri buñ demee ba ca suuf sa nag nga dégg ñu ne non capitaine bi il est fort non gis nga tey bu doon du sunuy sunu gàllaaj yi non bu doon du sëñ bi non bu doon du diw allahu akbar baleen yàlla musalee de ñàkk jom woo yàlla ba yàlla musal leen falamma najjaahum ilal bar yàlla musal leen ba ñu egg suuf ba seen tànk laal suuf rek isaahum yushrikuun nga commencé ñu bokkaale yi naan gàllaaj yi la naan téere yi la kii naan liggéeyu ndey la kii naan nangam nangam kii ne capitaine bi moo fort de chotëtëtët mais il est fort cet homme là allahu akbar ñu fàtte yàlla fàtte na yàlla la ñu woowoon ba ñu nekkee ca tolof tolof ya gis nga ndeke yéeféer yi sax bu ñu sellalee ñaan gi bu ñu woowee yàlla yàlla wuyu leen kon loolu tax sellal mbokk yi am importance kon fal waajib ala kulli muslimin wa muslima li war ci jullit bu góor ak bu jigéen mu xam importance haazal amrul jalil mu xam importance mbir mii muy mbir mii di ñaan mbir mii di sellal mu xam ne an yaalama anna duaa xaqullaahi xaalis mu xam ne ñaan yàlla rek a ko moom yàlla dong ko yeyoo te dafa war a set ngir yàlla du dagan ci yow ab jullit bu góor ak bu jigéen ngay woo yàlla wala nga koy ñaan an yushraka maahu xayru ngay woo yàlla di ko boole kenn bu neexee yàlla ak diw yàlla ak diw di boole yàlla ak ak ak yàlla ak musibal kaa inan man kaana ku mu mën a doon nag instant yi may wax ak yéen ku seen xel dem rek kooku laay wax waru leen koo woo instant yi may wax ak yéen ku seen xel dem ne kooku la rek kooku la kooku kenn waru koo woo ci ñaan yàlla yàlla rek a mën kenn mënul ku dul moom du góor du jigéen du ma sàmba du ma demba kenn rek a mën muy yàlla moo tax yàlla ne woo leen ma man kese bu leen ma boole ak keneen kaa inan man kaana ak ku mu mën a doon faqad ajmaa ahlul ilmi qatibatan ala anna man sarafa shay'an من الدعاء لغير الله فقد وقع في الشرك الأكبر الذي لا يغفر والعياذ بالله mbokk julit yi mboolem borom xam-xam yi ñoom ñëpp dajale nañ ñoom nañ daje ñoom ñëpp daje nañ dëppoo nañ nangu nañ képp ku soppi lenn ci ñaan ci jaamu yàlla nga jox ko keneen ku dul yàlla dugg nga ci bokkaale bu mag bi nga xam ne yàlla du ko baale képp ku jaamu yàlla képp ku woo keneen ku dul yàlla li nga war a defal yàlla nga jox ko keneen dugg nga ci bokkaale bi nga xam ne yàlla du ko jéggale kon mbir mi na leer ci ñun anna al ixlaas lillahi taala yàlla rekk moom sellal te loolu day wone wa sixatul itiqaad day wone ne kii kat di ñaan yàlla rek pas-pasam wér na kii di ñaan keneen ku dul yàlla pas-pasam wérul moom ñaan googu nga xam ne moom dong la ñuy ñaan ngir yàlla muy wane pas-pas bu wér bu jullit bi jubal ci yàlla loolu dafa am relation dafa am xeetu jokkoo bu muy jokkale ak yàlla yoo yàlla nangu sa ñaan cheikh al islam ibnu taymiya ne ijabatu dua takunu an sihhatil i'tiqad nangu ñaan nit ñaan yàlla yàlla nangu ko day wane ne pas-pasam wér na pas pas bi mu fas ci yàlla loolu wér na wa an kamali taa ne moom toppam mat na kii kat toppam mat na waaye pas pasam wér na li annahu aqaba ayatu du'aa'i bi qawlihi falyastajibu li waliyuminu bi mbokk yi ndax aaya bi yàlla subhanahu wa taala tëje aaya bi muy nangoo ñaan dafa ne nañ ma jublu nañ ma wuyu si fal yastajibu lii nañ ma wuyu si waaye wal yuminu bi nanu ma gëm kon tomb bi mooy tomb bu njëkk mooy al ixlaasu lillahi mooy sellalal yàlla ñaareel bi mbokk yi mooy an yabdaa bilhamdi والثناء عليه ثم بالصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم ويختم بذلك ñaareel bi mooy boo bëggee yàlla nangu sa ñaan boo koy tàmbali santal yàlla waxal alhamdulilahi rabbil alamin santal yàlla balaa ngay ñaan da ngay sant yaa karim yaa gafuur li nga bëgg nag baat boobu ngay jël ci turu yàlla yi dangaa bëgg wërsëg nga ne yaa razaq dangaa bëgg yërmande yaa arhamar rahimin dangaa bëgg ubbeeku nga ni yaa fattaax xam-xam yaa alim noonu ngay def tàmbalil ci sant yàlla ak tagg ko soo paree jullil ci yonent bi alayhi salaatu wassalaam soo paree nga tëje ko ñaan bi loolu lii mooy teggin yi boroom xam-xam yi jàngale boroom xam-xam yu mag yu mag yi li ñu wax mooy an yuqaddima lahum sana mooy bala ngay ñaan yàlla sant ko tagg ko bàkk ko kañ ko qabla su'alihim bala ñuy ñaan walillahi almasalul aala loolu nag yàlla moom kenn du ko tëkkalee mbindeef waaye daal gis nañ ne boroom xam-xam yi moom li ñu jàngale mooy balaa ngay ñaan taggal santal fa huwa taala awla bi hadha al maqsad moom sunu borom subhanahu wa taala moo gën a yey ci bàkk ci tagg ci kan mbokk yi ñëw na ci sunna yonent bi alayhi salaatu wasalaam ah ne ay mbir yoo xam ne dafay feddali di dëgëral lii ñu wax léegi léegi yonent bi alayhi salaatu wasalaam dégg na benn waay rajulan yad'u fi salaatihi benn waay ngay woo ci julleem falam yusalli ala nabi julliwul ci yonent bi ajjala hada yonent bi ne kii de dafa yàkkamti fa qaala annabi sallallahu alayhi wa sallam ajjala haza kii dafa yàkkamti bu mu waxee loolu summa da'aahu fa qaala lahu wa li gayrihi ida salla ahadukum falyabda bitahmidi rabbihi wassana alayhi walyusalli ala annabi sallallahu alayhi wa sallam summa liyad'u bima shaa yonent bi jàngal waa ji naka la ñuy ñaanee ne ko kenn ci yéen buy ñaanati na tàmbali sant yàlla kañ ko bàkk ko julli ci man yonent bi alayhi salaatu wasalaam su paree mu ñaan la mu bëgg kon doomi ndey yi ñaari mbir a ngi nii yii wane ne soo bëggee yàlla nangu sa ñaan jublu ci mooy sellalal tàmbalil sa ñaan ci sant yàlla bàkk ko tagg ko kañ ko jullil ci yonent bi soo paree ñaan gi tëje ko ndax yonent bi li la jàngale لذلك ينبغي للأب للعبد أن يتأخر لدعائه وللثناء على ربه جام بدي warna tàmbalee ñaanam ci tagg boroomam sant ko ci ay baat yi nga xam ne moom la yàlla mingu moom la yàlla moom moom buur bi nga xam ne mooy buuru buur yi moom mi nga xam ne mooy borom mbindeef yi soo paree tagg yàlla fexeel nga julli ci yonent bi alayhi salaatu wasalaam fexeel nga julli ci yonent bi ñaanal ko su ko defee sa ñaan yàlla subhanahu wa taala daal di koy nangu ndax yonent bi nee na man salla alayya min ummati salaatan muxlisan min qalbihi sallallahu alayhi biha asara salawat wa rafaahu biha asara darajat wa kataba lahu biha asara hasanat wa maha anhu asara sayyaat yonent bi ne képp ku julli ci man ci sama xeet mu ngi ko sellal ci xolam yàlla dina julli ci yow fukki yoon yàlla dina la yëkkati fukki daraja yàlla dina la bindal fukki tiyaaba yàlla dina la efasal fukki bàkkaar benn nga def de yàlla fay la ay fukki fukki fukki fukk wala yàlla bu la fayoon benn rek doy na waaye xoola yàlla fay la fukki tiyaaba yëkkati la fukki tiyaaba ah bindal la fukki tiyaaba daal lay effacer fukki bàkkaar kon mbokk yi julli ci yonent baa ngoog ñetteel bi ci tomb yi nga xam ne soo ko defee yàlla nangu sa ñaan mooy aljazmu fi du'a wal yaqin bil ijaaba dogul kii ñaan na dogu ci yàlla na am yaqin ne yàlla nangu na ñaanam waaw loolu mooy sart yi gën a rëy da ngay dogu am kóolute ci yàlla mii ngay ñaan may na la innama qawluna li shay'in ida aradnaahu an naqula lahu kun fayakun yàlla nee na man bu ma buggee wax dara moo am dama naan na am moo am kon booy ñaan dogul mooy sart bi gën a rëy nag ci sart ñaan asiqatu billahi nga am kóolute ci yàlla nga am confiance ci moom wa annahu ala kulli shay'in qadir ne moom da yàlla lépp la mën ndax lan li kamaali qudrati yàlla moo am kattan gu mat waaw yàlla moom du fa nekk di wax nangam déedéet day wax na am moo am amal kóolute ci yàlla ci sa boroom nga am kóolute bu wér nga am yaqiin yëg ne jami il xazain il xayrat wal barakat inda allahi taala mboole magasin yiw yéeg barke yi yàllaa ko yor yàllaay maye boo ñaanee yàlla yàlla may la mbokki jullit yi kon ci tomb ñetteel boobu ci la ñuy taxaw ba dars yii di ñëwaat ñu mottali ko comme tomb yi xaw na bari incha allah ñu jàpp ñetti tomb yooyu tomb bi ci njëkk mooy sellal ñaareel bi moom mooy taggal yàlla bàkk ko kañ ko jullil ci yonent bi ñetteel bi mooy amal amal dogu gu wér nga am kóolute ci sa boroom ne boo ko ñaanee mu may la ñu ngi ñaan yàlla subhanahu wa taala yàlla def ci ñun dégg ak topp asalaamualeykum wa rahmatullahi wa barakaatu.